bonne nouvelle la ñuy wax euh, jëm ci ka nga xam ne moo di Ousmane euh, Sonko ginnaaw verdict ba nga xam ne jamono ji nag daal nay daal di wàcc ñuy wax ne Ousmane Sonko nag jamono ji nag daal nay mën a bokk ci élection 2024 yi kon nag Ousmane Sonko dafay daal di bokk ci élection yi nga xam ne nag jamono ji moom lañ daal di euh, dëgmal Cour suprême daal nay nag joxe la nga xam ne moo di dogal bu ni mel jëm ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono jamono ji nag ñu bëri ci Sénégal yi nag jàppoon nañu Ousmane Sonko du bokk ci élection yi kon nag jamono ji nag bon nouvelle la ñu daal di wax jëm ci ñi nga xam ne rek euh, ñoo ànd ak Ousmane Sonko jamono ji nag Ousmane Sonko nag daan nañ nekk li nga xam ne rek moo di candidat 2024